bu ñu sukkandikoo ci boobu les rapport nag ndaw ñi ñoo ngi ci guddi gu bët set setagut li yokk ci xar mi kawar nag moo di njiit yi li leen waroon lu bari daanaka defuñu ko loole nag nekk pertement bu bari ndaxte ci xayma lu ëpp téeméeri junni milliards ak lu teg pertement lay doon diggante 2024 jàpp 2050 loolee nag boo ko doon xayma mooy at bu nekk ñeenti junni milliards ak lu teg boobu les rapport di fësal nag ndawu léegi jafe-jafe yu bari la ñu di dund loolee waral nag ñi ci ñàkk seen bakkan daal di bari ndaxte bu ñu sukkandikoo ci boobule kayit lu ëpp un million ak genn wàll ndaw daal dina ñàkk seen bakkan ci atum 2024 seeni at toll ci diggante fukki at jàpp fukki at ak ñeent ci xayma nag mooy bés bu nekk lu ëpp ñeent junniy nit li ko waral nag moo di ay gaañu gaañu leneen nag soxal santé mentale itam ëmb yi nga xamante ne nag dañ koy daal di am benn ndaw boo jël ci juróom-ñaar bu am diggante fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom-ñeent dépression lay daal di amee loole nag di waral muy daal di ab suicide soxal nag ñu won lor ñu xayma leen ci fukki million ak ñaar am diggante fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom-ñeent lu ëpp téeméeri junni ñi nga xamante ne seen at motul fukki at ak juróom ñoom it ñu won lor di ci jëlee sax ay jafe-jafe soxal nag domaine professionnel juróomi ndaw yu am diggante fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki at ak ñeent kenn rek moo ci am xëy wala moo ci daal di jàng leneen nag ñu daal di ko ci boole moo di jafe-jafe yu ñuy am soxal li ñuy daal di lekk wala sax lu soxal climat bi loole waral nag OMS UNICEF ak UNFPA ñuy ñaax njiit yi rek ba ñëpp daal di xàccandoo ngir daal di ko fay jëlee ngir jëlee ko fi nag faaw ñu daal di sukkandiku ci yilee ñett couverture sanitaire universelle ñu daal di ñoŋal njàng meek njàngale mi ak daal di leen taxawu.